mais les déserts médicaux comment non, non comment... désert désert amul fii xam nga désert mooy li ma la wax rek c'est-à-dire désert fu mu am rek c'est parce que nit ñoo fa bëggul dem tey nit génne na faculté de médecine nekk pharmacien dem dans un village bu fe pharmacien mhm. parce que xam na ni fii mu toog ni dafa saturé amul wala boog norme yi moo ko mayul désert amul fenn laa la wax mhm. yow kay yaay xam yow li la li la li la visé maintenant xam nga bërki dem gis nañ président woo na bàjjenu gox yi parce que am na rôle bu ñuy jouer dans le cadre des des relais communautaires comprendre mais aujourd'hui toogoon nañ fi ay temps au temps de Issa Mbaye Samb il avait même parlé de médecins sans blouse yooyu yëpp ay yu ñu théorisé la mais tey jii am na zone yoo xam ne su ma la waxee parce que démb j'étais à la région médicale on a on tenait une réunion de redéploiement du personnel au niveau de la mm-hmm. avait à notre disposition une euh, la liste de du personnel qui était disponible j'ai vu sur une liste de 46 contractuels du ministère de la santé ñu envoyé ñu ko pour ñu affecté ñu mais quand j'ai lu la liste parce que li ma xool li ma ci gis yëpp ñu contractualisé au niveau du ministère defe naa y benn infirmier d'état moo ci nekk y avait même pas mm-hmm. man est-ce que je ne que ñooñu on n'en besoin dans <laughs> dans, dans nos parce que moi je suis mm-hmm. je défends tous les travailleurs on en besoin mais dafa mel ni rek li ñuy wax une armée une armée dafa am hiérarchie voilà ah, am na hiérarchie mais am na aussi lu nekk lañ ci war a am loolu mooy permettre nga mën a développer. parce que tey jii bu fekkee ni li nga xam ne moo nekk dans une zone opérationnelle ña nga xam ne ñoom ñooy noyau ñiy concepteur wala nekk amuñu fa soins yi dootul nekk de qualité. et c'est ça donton on se baaxul mooy li ma lay wax parce que je vous ai dit 2019. Euh, Euh, deux mille je pense le président de la république dafa con dafa convoqué woon benn benn benn genre rencontre boobu Covid bi ñëw yàlla def ma am chance ñu invité ma ci boole ma ci j'ai pris la parole on a argumenté ci ñu wax nii dans la situation le président bi nu paree immédiatement xam nga lu mu wax parce que il était très touché et sensible par rapport ak li ñu ko wax ci problème personnel ce jour-là il a dit je donne une autorisation d'ouvrir 1500 postes budgétaires séance tenante waaw mais mais est-ce que li ñuy wax ni mi ngi egg ci président ba président xam ni la priorité n'est pas uniquement de construire des hôpitaux avec vingt milliards. Mmh. alors qu'on ne forme pas ou on ne recrute pas de personnel. gis nga recrutement boobu ma lay wax ba tey jii à bu bërki démb bërki démb recruter nañ te yooyu je pense que le nombre de médecins c'était autour de trente les sages-femmes trente-trois les infirmiers d'État vingt-huit pour tout le